c'est le collectif des étudiants médinois pour la lutte contre le Covid-19 Nous finissons tay def geste bi manam may mais aussi sensibiliser parce que la sensibilisation mo gëna importante. am solo donc le collectif est composé des juristes ak les étudiants yi nga xamné ñi fac médecine ak ñi nga aussi tamit sunu coordinateur Pape Atoumane alors donc si lolu dañ ñëwoon def ay jéego dem nañu djun def aussi sensibilisation bi parce que population bi là la soxla def aussi tamit ay may juste symboliquement ñëwaat fi Russis pourquoi la Russie? lu am donc jaruñu des lois, mais di la population aussi ce n'est pas des gens à stigmatiser dal donc il faut que nous soyons un potentiel porteur de virus. mais aussi pour il faut que nous main dans la main ñu nous Nous aussi

ay savon tamit jox nañ leen ko pour wax leen ni tamit nan lañ koy utiliser ñu ngi ñaan tamit population Médina suñu amul gel amuñu ay savon mun nañ utiliser ay eau de javel yo xamantani dinañ ko utiliser seen que désinfecter bunti désinfecter fo xamantani fep fo xamantani loxo mun na fa laal pour ñu gëna maytu feebar bi parce que déjà suñu demee suñu hôpitaux yi comme suñu professeur yu nekk euh, si suñu hôpitaux yi nuñ ko waxee suñu hôpitaux yi attanuñu yenn euh, nombre yoo xamante ni hôpital bi mun nañ ko jël donc lu ñu mën a def mooy sensibiliser nit ñi ñu am ay problème de prise en charge loolu la ñuy wax surtout surtout ñu bañ a euh, stigmatiser nit ñi mooy lan mooy feebar bi du feebaru gàcce feebar bi du feebaru gàcce gàcce mooy nga wàll ko ñi nga dëkkal Euh, ba ñoom ñëpp amandoo ko loolu mooy gàcc mais yow soo ko amee mun nga dem déclaré wu ñu faj leen ma amaana loolu rek nga mën a euh, dimbalee ñi nga dëkkal dimbalee surtout mag ñu nekk seen kër parce que mag ñi attanuñu yenn feebar yi xale yi tamit attanuñu yenn feebar yi kon yow mii nii soo ko amee demal nga déclarer sa bopp nga ni man amee naa yenn symptômes yi ñu teste la xool la soo ko amee ñu faj la